yi ñu sant leen gërëm leen jaajëfal leen bu baax a baax eh, dalal leen fii ci biir kër gi eh, jamono TV bu ko defee ñu jukki bopp xibaar yi nga xam ne xëy na fi fas dana ñëw ci biir xibaar yi eh, ci ay woy takk der yoo xam daal den gunge woon mu fi nekkoon di Yaya Jammeh ci atum 2017 ginnaaw ba mu doon dem foofu ci Équatorial Guinée nekk fa ab woy làqu wala ab tumuranke jamono bi nag buntu jorin benn gàlloo mooy seetu wàllam karange gi dëggal na ne Eh, yooyu la mooy takk der loolu du bañ a yàgg dara dinañ ñib siyaat fii ci même réew xibaar bu ñu mel fas na ci standard eh, niskis des des nañ ko yaatal naka noonu dina ñëw ci biir xibaar eh, na lu tolloo ci juróom ñaar fukkaat jamono bi dañ ko ngëb ginnaaw ko soxi ko xale bu tolloo ci fukkaat ak ñaar ba fa la jaaree dal di dëddu xibaar boobu fas na xibaar yi loo xam daal dafa aju ci fan fànn ak wér-gu-yaram buntu jërit bañ ko gàlloo jamono bi nag taxaw nañ temm eh, ba gis daal woowlee fànn dinañ continuer di wéyal eh, pour soññ askan wi dana ñëw ci biir xibaar yi ci loo xam ne eh, dafa aju ci nguur gi oote bi nga xam daal oote nañ ko ci askan wi pour nag ñu jàppale ñi nga xam daal ñoo nekk Scorpions yi mooy seen jiit yi nga xam daal ñu nga war a dem foofu ca Cameroun pour waaj a fa amal akum tàggat yaram ci warum jërwaare bi ñu dëgmal Euh, pour nag ñu jàpp ci ci wàllum koom kon mbokk yi lii la ak yeneen i xibaar bu ngeen taxeloo tuuti euh, bu bàkk bi daan mu tabal ñu ci yaatal gi ak firin fàcce gi ci kàllaamay Kocc Barma leeru jamono ba jëm na Eh, fii ci jamono TV comme na ma ko dikkoon ca njëlbeen ci lañ koy tàmbali eh, ci bile jotaayu atum xibaar te mangum ñaar fukkeeli fan eh, tombel altine weerum décembre atum ñaari junne ñaar fukk ga benn standard musiba lañ koy xaatim indi ko seen xar bu njàkk ci loo xam daal dafa aju ci wàllum ay wuy takkadeer yoo xam daal den àndaloon ak ñi mu fi nekkoon di Yaya Jammeh Eh, ginnaaw ca di bi wéeram wala ci atum 2017 eh, moom nag Jammeh moom doon dem foofu ci Guinée équatoriale eh, nekk fa buy làqu wala ab tumuranke lu ginnaaw nag sànni kàtt yi nga xam ne moom leen weesu ci ay bés buy ñu ñu génn Eh, gis na nag ñoom nag yooyu la way takk der ñu ngi defoon ba benn vidéo eh, vidéo boobu sax ñu ngi fi doon tàcce ko feccu eh, fecci di wëy ci ndam li nga xam daal moom Adama baro am na ko ba noppi lii nag waral na jamono bi buntu joriñ boo xam daal ñoom leen gàlloo ñuy seetu ba karangeeg réew mi ah, adduneen seen ba kàddina yooyu lay way takk der deneen si siyaat fii ci même réew ginnaaw nag am na baaj bi nga xam ne demoon neen ba noppi ba ñooñu ñu changé leen ca jamono yooyu ñi nga xam ne ñoo fa nekk di seetu kaaraange gi foofu ci diwaanu équatorial ci jën mu fi nekkoon di Yaya Jammeh dëggal ne lu bañ a yàgg dara ñu ñu des nañu bàbbeekuwaat fii ci même réew kon na ko yenn kaay bi xëy fasal mooy audio Euh, ci standard news euh, people ñoo xatim bi le euh, xibaar beneen xibaar boo xam ne moom la ñu ci fànn bi réew mi ci loo xam daal dafa aju ci wàllum mbiram tàggat yaram ginnaaw nag jamono bi xel yëpp ñu ngi a dem foofu ci Cameroun la ko waral nag mooy AFCON mooy nag jongante goo xam ne dañ ko dee amal ci dendug Afrique gile li nag waral na jamono bi gis nañ nag NCC taxaw nañ temm mooy National Coordinating Coordinating Committee kurel bobu boko ko eh, ñoo taxaw temu di seetu ci lépp lo xam dal eh, di leen nafaraat pour gis ne eh, wàllum tagat yaram di leen ko ñongal fi ci réewum gambi ñoom nak jamono bi ñi ngay gëna a ñaax askan bi nak noonu gëna soñ nguur gi pour ñu def seen kem tol way katan dal di jàppale suñ jidi ginaaw nak jidi ñi ngay waja amal wala ñi ngay dëgmal ci ab jonganté bo xam war nañ ko amal fofu ci Cameroun ci weerum janvier wi ñu dëgmal atum ñaani junné ñaar fukk ak ñaar Eh, gis na nag njël benni eh, dunit maanaam daal eh, njël benni koom goo xam daal amagum ko koom-koom googu mu nga tukki koo ci njël mi one million dollars bi nga xam ne moom la président Adama Barrow jukki officiel ñu mit jukki lu toloo ci juróom-ñetti million Vista Bank jukki lu toloo ci ñaari téeméer bu tegal juróom fukk junne ci wàllum koom Euh, loolu nag ba tey ji doyagul waaye nag ñu ngi gën a sàkku euh, askan wi ak ñoo xam ne euh, bëgg ñuy jàppale yooyu les scorpions wala nag ñi nga xam daal ñoo ñu war a teewal foofu ci Cameroun pour war a yëngatu ci wàllum tàggat yaram pour nag ñu gën leen a jàppale ci wàllum jumtukaay naka noonu koom-koom goo xam daal waris nañ ko war a mën a jëfandikoo pour amal akoom wàccaay ca biir milieu NCC tamit dëggal nañ ne duñ yokki mukk tey duñ taay benn yoon dinañ continuer di def seen kéem tolluwaay kattan Euh, comme na ko Moussa Cissé Birélé mi nga xam daal moo nekk seen spokesman maanaam daal moo yore làmmiñu kuréel boobu ne euh, ñoom nag lépp luñ mun ba gis daal Scorpions yi dinañ am wàccaay wu mucc ayib euh, si jongante yi nga xam daal ñu ngi ko war a def foofu ci Cameroun loolu nag dinañ ci taxaw temu daf ci seen kéem waaye kattan ba mbir yu ñu mel mu mën a antu comme na ko yéene kaay bi xëyee fasal xibaar bu ñu mel Euh, standard Giuseppe ba ñoo ko xam ne waaye jamono bi wàccaay bi euh, tar na lool ci road euh, maanaam pour damali foofu ci Cameroun mooy road to AFCON bu ñu bàyyi ko ci boobu lee xibaar Makusa ci leneen ca Foria ah, tey jii la ñu xaatimal mooy buntu jorin bañ dénk mooy seetu lépp loo xam ne aju na ci wàllum fànn ak mbiram wér bu yaram fu mu nekk nii nag am na ab campagne boo xam ne campagne bu ñu mel. Eh, dañ ko bugg a tàmbali ci ñaar fukkeeli fan ak ñeent ci weeru décembre bi ñu nekk atum eh, ñaari junne ñaar fukk ak benn ni nañ ko tuddee sax mooy street eh, by street vaccine maanaam daal Euh, ci xàll yi lañu dem euh, ci yenn ci gox yi fasantikoo yi yu nekk ci même réew euh, pour nag askan wi mën a jël vaccine bi vaccin yi boo ko déggee mooy ab garab boo xam ne daal garab boobu wala si nga ko war a mën a jëfandikoo ba gis daal am na ab xar boo xam ne dina ko amal sa buntu fànn nag wér gu yaram dina nag moom coronavirus. Eh, turam dëgg-dëgg eh, noonu laay uyoo Covid 19 bi dàkkantalam dafa ma ni ba tey jii eh, mu ngay gën a continuer di wulee njaay ci àdduna wéngal képp li moo waral buntu Joorin benn gàllo ñuy seetu fan ak wér-gu-yaram taxaw nañ temm ba gis daal xal yi maanaam daal si street yi dinañ fa dem ba gis daal askan wi des nañu mën a ñàkk fii ci même réew Modou Ndiaye nekk director of health Euh, promotion and education mi nga xam daal moom leen dénk mooy seetu ci lépp loo xam ne aju na euh, ci wàllum buntu fan na di wér-gu-yaram moo dëggal euh, bi leen xibaar ne ñaar fukki fan ak ñeent la ñuy tàmbali woowulee li nga xam daal mooy street by street vaccine ci xal yi nga xam ne Eh, ñu ngi fii ci même réew euh, pour askan wi nag mën a euh, ca seen bopp ci doomu wopp gi di euh, coronavirus beneen xibaar boo xam ne moom lay seeti ci fànn bi réew mi muy affaire yi mbay eh, jamono bi nag gis na nag baykat yi dafa mel ni nag welcome neen maanaam daal ñoom nag dalal neen traite bi ginnaaw nag ren nguur wan ne Eh, dinañ jëndee lu tolloo ci twenty eight thousand par tonne maanaam daal ñaar fukk ak juróom-ñett eh, ci tonne ci wàllum eh, gerte moom lañ koy jëndee ci même réew dina waral na baykat yi nga xam daal ñoo nekk foofu ci Farafenni Kuntawur Kerewan ci la Jurunku nekk ci tudd bët ganaar yi réew mi muy North Bank Region ñoom nag àdduna seen ba kàddu ne 28000 euh, bi moom loolu welcome nañ ko bu baax a baax maanaam dañu ngi koy dalal te dañu ngay gën a séntu euh, traite boo xam daal traite boobu mu cib ayib la Eh, te baykat yi nga xam daal ñoo nekk fii ci même réew eh, ñoom tamit di leen mën a gis seen bopp ci eh, année bi nga xam ne noonu la ñu kër këree di wett seen ab ñàq pour ut loo xam ne ñoom it des des nañ koy wang dugal seen ba gafaga ginnaaw nag yoolee baykat di nekkee ci tund bët ginnaaw di réew mi ñoom nag àdduna ne 28000 bi maanaam daal ñaar fukk ak juróom-ñetti junne bi nga xam daal loolu la nguur teg ne atum ñaari junne ñaar fukk ak benn gi dàq ji atum ñaari junne ñaar fukk ak ñaar loolu laay jëndee période bi gerte par tonne loolu nag dafa mën ni <coughs> neex na baykat yi nga xam ne euh, ñoo nekk ci tund ba gànnaar yi réew mi di jégalu ci loolu ba tey euh, bu ñu bàyyi ko ci boobulee xibaar ma xusaat ci beneen yi xibaar euh, ab waay boo xam daal moom booy xayma ay atam laq na lu tolloog ci juróom-ñaar fukki at góor googu dañ ko ngëb la waral ñu ngëb ko eh, ginnaaw nag moom ab rëbbukat la rëbbukat bi nag dafa jëloon eh, fetalam eh, daal di ko teg ab barab foofu ci Lamine Babylone ginnaaw nag ba tegee fetal gi ab xale bu ndaw Euh, moom nag ci la jël fetal bi doon ko foye mu jigéen nag foye boobu euh, ci la ko sox xale boo xam daal ay atam mu ngi làq fukk ak ñaari at euh, mu jigéen nag ba mu ko soqee xale boobu fa la jaaree dal di dëddu lii nag sababu la ba mu xawee police boo passé daal ki nga xam ne moom leen dénk mooy seetu làmmiñu police yi nekkee fii ci réew di Oyo ci Lamine Ndiaye dëggal na ne euh, moom euh, góor gi la di uyoo ci Abdou Ndiaye euh, fu mu nekk ni nag rëbb nañ ko ba ngëb nañ ko pour nag moom mu mën a layoo lan moo tax nag mu doon càggante woowule jumtukaay wi nga xam ne xale bu ndaw moo ko jël dal di ko soxe am moroom xale bu làq fukki at ak ñaar ba fa la jaaree dal di dëddu fu mu nekk ni nag gis na ne ñoom nag dinañ continuer wala nag way takk deer yi ñoom nag àdduna ne wala beneen na si na ne ay gëstu xarañ yu mucc méngoog jamono euh, des des dañ koy def ci mbiram Abdou moomu pour xool yi fan la euh, wanentu nara nama mujj ak i gëttam ca naa la aju euh, ci ay mbiram kon mbokk yi lii moo fi gënoon doon fas ci xibaar ñu jaajëfal leen ci kóolute ak safa bi nga xam ne daal saa su ne yéen ñu koy topp fii ci jamono TV yàlla am na jàmm comme jàmmal nga xam jàmm jàmm ji nga xam ne moom leen xëyee yéen nañ ko yendoo dal di ko farandoo jërë ngeen jëf bee léegi jàmm